asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kon ba tey yéen a ngi ànd commission Noreyni bi lëkkëri tarbiya Serigne Saliou Mbacke yëpp ah, su ngeen gisee image bu yaatu bu yanj bi ñu ngi nii fegg ku mel ne Serigne Jëri Serigne Abdou Ndiaye xam ne nii mooy ah, kullu jëwrin noo nga tarbiye Serigne Saliou Mbacké yi ànd ko ak mag ñu baax ñi nga xam ne ni ñoom la àndal liggéey bi ah, ànd ko ak Serigne Cheikh mi nga xam ne ni mooy taxaw liggéey baas bi jëm ci wàllu màggal ak Touba tey jii ñi ngi fii ñëwoon doon seet si baas bi at fas yéene soññee mbokki ndongo tarbiya yi nga xam ne ni ak mbokki jullit yi nga xam ne ni ah, ñooy feddale màggal gi di ko ànd ak mbokki ndongo tarbiya Serigne Saliou Mbacké yëpp kon danañ jox ku si mel ne Serigne Cheikh ko defee mu ñëw ci programme baas bi buñ paree danañ jox Serigne moor Ndiaye mu ñëw ci programme xasida yi at ñu ko fas yéenee dundalee ba ñu paree dana ñëw ci Serigne Abdou Ndiaye mi nga xam ne nii mooy jëwriñ ndonga tarbiya Serigne Saliou Mbacke yëpp indi kaddu soññee at ndigal li nga xam ne nii mi nga jóge Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke fas yéene ka ànd ak ndonga tarbiya Serigne Saliou Mbacke yëpp kon Serigne Cheikh Diagne bisimilah. waa kay asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi nuyu mbooloo ñu nuy yàlla bu baax ci tawfeex gi mu defal ba nu fekkewaat wàccaay wi di ñaan suñu borom defal nañu fekke ko te am tawfeexu màggal ko ni ko borom santaane ñu ngi ziar bu baax di ñaanal sëriñ Saliou sunu borom yokk ay leer te doolu koy xéewal fa mu ne sëriñ Cheikh bi nga xam ne moo fi jëwriñ mi sunu borom guddal aw fanam te kàttanal ko ba mu mën a motale li nga xam ne sunu borom batale na ko ko ci ginnaaw Serigne Saliou tanu nu ànd ko moom. waa bu ko defee mel ni programme liggéey bi moom ni mu daan demee naka jekk rek xam ngeen yaakaar tey la ñetti fan ci safar. at mu jot nim daan dewe moy bu benn fanu safar ci lañuy ñuy fi nek ci liggéey bi ci biir kër gi ak ci biti yépp li biir kër gi laaj lépp ñi ci ne li biti gi laaj ñi ci nek baba bis bi aksi yalla dogal na tay moy ñettelu fan xamna ci biti gi mom lu bari doxagum na fi na gis ngeen basu mag bi taxaw na li ci dess bari wut basi ci des mo ci dess ak biir kër gi bu ko defee mbooleem li nga xam aduna ci liggéey bi yépp ni lay démé ba magal gi ñew inshallah allah bis bu sét rek liggéey bi mi ngi fi té day gëna luñu gëna jégé sax magal gi day gëna bëri mën nañ ko wax lolum dañ ci profito sax di soñ ñi nga xamni ñi ngi ci dëkk bi ak ko xamni ni néewoo ci dëkk bi te sa jot may la ko bo mëne ñew japp ci liggéey yu dana ci am solo lol waaw waaye ci gattal dal manam fi ba magal gi jot bis bu sét liñu wara def suñu xëyee ci leen dañ ci nekk du am benn waxtu waxam wu lu ñuy tok la dal yi nga xamni hôpital yi ci nekk ak croix rouge xeet buñ paree danañ ko defar fii mooy baas mag bi nga xam ni fi la ñuy jàngi xasida ak alxuraan di fi durus biir kër gi fi nga xam ni fi la dal yi maanaam daayira yi ak gani sëriñ bi di dal ba tey yooyu yëpp dañ koy toppatoo defar ba mu mel ni mu war a mel ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ni moom mooy programme bi nga xam ni mooy mooy mooy mooy programme liggéey bi ci bi jëm bi jëm ci jëm màggal bi waaw bu ko defee eh, leneen li ci des muy lu jëm ci programme durus xasida beeg wala waa wala njàngum xasida bi suñ Mor Ndiaye na ko leeral leneen lu ci ajur sëñ Abdou na ko leeral bu soob yàlla waaye bu dee programme liggéey bi daal noonu ni ñu daan doxee rek noonu la nan te nan xam ne liggéey bi day gën a yokk ndax euh, ni mu daan ni mu daan demee bu njëkk <coughs> day mel ni boo xoolee ñaari màggal ci ginnaaw da daan doon ci noor bi waaye màggal yi nga xam ne da ñaari at yi ñu génn màggal daal laal ci nawet bi ba nga xam ne dalin yi day gën a métti <coughs> moo tax liggéey bi di gën a métti façon base yi fi daan nekk day gën a day changé façon liggéey ni wi day day changé motax fi ba ba magal gi jóge jeex ba nan gannaaw suba lawon magal barki de gannaaw wa barki dem lawon magal màggal dameen bisu rek wa lool la kon ñing ci soñu mbokk talib taal bi di ñaan suñu borom defal nu tawfeex ñu fekke ko ñun ñëpp barki Seexul khadim wa bu ko defé xéewali wa xéewali xéewal non la amé moy <coughs> day melni ni euh, ñing ci ñing kay fatali mbokk dongu mbokki ndax fi mom ñun ñëpp natam li Euh, ndigalul sëriñ bi moo moo moo nu fi bàyyi loolu xam naa sëñ Abdou dina ci ñëw waaye ni nga xam ne noonu lan daan baaxoo di lijjën di di di di di joxe addee yi nga xam ne moom moo jëm ci màggal gi ñu ngi koy fàttali ñëpp ba tey loolu mën nañ koo bàyyi sëñ Abdou mu soññee ko comme moom mooy wax ci wàllu woowu bu ko defee ñun ñu yem ci programme bi rek waaye loolu ba lépp ci liggéey bi waaw. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk ñu leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi. suñu wasila sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke yàlla ñaanal sëriñ Mountakha suñu borom dolli ko wér ak kàttan ba naal yi mu naal naal ci liggéey sëriñ Touba suñu borom àggale ko ci lu kawe njort te ñu ànd koog moom. di jël nuyoo di ko teg si loxo suñu jëwriñ sëriñ sëriñ Abdou Ndiaye moom mboolem suñu jëwriñ yi nekk suñu ginnaaw yëpp ñu jot lañu ñu ko kullu ndongo tarbiya euh, sëñ Cheikh noonu nga ko waxee rek wàccaay moom. biñ biñ ci jógee daaw rek lañ ko commencé mooy niñ ko niñ ko baaxoo di def rek tànn xasida yoo xam ne dañuy jël sas wi seddale ko ci ñaari bis bi ñaari bis yi muy 17 safar ak ak ak 18 safar 17 safar ci la programme bi du commencé programme bi dina commencé 9 heures et demi kuréel gi nga xam ne mooy mañ ma honoré la nga xam ne moo ëmb daanaka kuréel yëpp daanaka benn benn benn membre bu ne daal benn kuréel gu ne am na ci membre daanaka ñoom ñoo ubbi programme bi ñoo koy tëjit bu soobee suñu borom. bu ñu ba di safar ca bët set nañ ko commencé nag mooy comme daaj yi nga xam ne sëñ bi moo ko tànnal boppam ne nii la bëgg ñu koy jàngee muy ci daaju waa Kër Sëñ Masamba ak daaju suñu daaju Siise nga xam ne daanaka niñ ko séddalee ci ay ay daaj euh, daanaka daaw ba tey mbooloo mi ñu ngi ci daje di ko répété ca njàngeen ya gën a gën a gën a gën a mucc ayib ba tax na ñu séddloo ko ci xasida am na ñoo xam ne moayefa la ñuy jàng waaye ñu ngi koy jàng daaju soixante soixante onze am na ñoo xam ne ñu ngi koy jàng soixante dix huit lépp kër suñu sàmb lay doon ak daaju suñu siisa yi ba ci baxarul basir yi noonu daal lañ ko bëgg a jàppoo ba ca faja ba ca fajar ga incha incha rabbi leneen la gis xanaa mu ànd ak day ànd ak tamit durus beeg lépp rek ndax ndax euh, alxuraan di xasida bi mooy ànd te daa doon loo xam ne moo moo mënta ñàkk ndax sëñ bi daanee temps yi bi sunat bi sunati te sëñ bi daf ñu koo digaloon ñu ko daan def ca kanamam ba jóge ba mu jóge fi nag ndigal loolu lañ continuer di ko wéyal du ko ànd ñu mbooleem kuréel yëpp xanaa di si woo ñëpp rek ci wàccaa wi rek ñoo ñu ndax xam naa ne gars yi moom wax dëgg yàlla jekk nañ ndax ni mu ko waxee kuréel mañ ma xam boobu bu ubbee am na yenn kuréel yu ci topp mën na lim bi wax mën na juróom-ñeenti kuréel wala wala mu ëpp ko ñu koy ànd ak waa Touba parcelle ak ak Hizbut Tarqiyyah ka sëñ Saliou te sëñ Lamine Seye jiite ko daanaka doon daal lañ ko sa chaque année noonu lañ koy programme bu dajee dañ ci def ay daje di ci waxtaan di waxtaan ba tënk kenn ku si ne buñ sedd danañ jël sas wi seddale ko nee kenn ku si ne xas de sangam xas de sangam ngay jàng daanaka boo xoolee li sa safar bi sas wi dana jeex buñ demee ci ci disu safar bi tamit sas wi sas sas sas wi dana jeex ci njàngin boo xam it mooy njàng daaj boo xam ne sëñ bi ci jotam daana toog li wax nii la ak nii la ak ak nii la ñooñu ma ko daan def ci ñoom tamit ba tey ñoo fi nekk ak ak ñan ci toqi woon ñu ànd di ko def kon xanaa di ci woo ñëpp rek ci bis ba insha rabbi suñ seex bu amul luñ ci gàdd asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaar di sant yàlla bu baax a baax tey ñaanal sunu jàmbaar ji Cheikh salihu Mbacké yàlla na yàlla sëmbërtal ay ay ay wa leer ci jëmmam ja léegi-léeg da nga koy bëgg a ñaanal waaye loo xalaat rek mu tuuti ci li nga ko yéene ndax laa sàkkane xol li mu ëmb làmmiñ mënu koo leeral waaye daal ñu ngi koy ñaanal yàlla mi ko bind def ko nii ko def lim ko tànnal lépp yàlla na ko ful ay junni yoon defalaat ko ko di ñaanal sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla fay moom sëñ bee ñu boole woon laataa bu demee ba yor lii tamit war nañ di ko ñaanal bu baax a baax a baax Eh, di sant suñu jambar ji di Serigne Cheikh salih mbake yalla nako yalla samuti guddal fanam ab sag la ci ñun ndam la ci ñun neena na ak mom benn photo rek titre la kër gi lañ dugg léegi wër nañ kër gep ba xol ko eh, Baye Ibrahima ndoy dama fat ni ma gi bu njëkk dañ daan def bu magal gi jige ñu sakket li wër kër señ bi yëpp té boba daan sakété ñi ngi ko daan wuti diggante fii ak kër sëñ Souhaïbou li tax ma laaj ko ko mooy sëñ Sall Touré moo ñu yabaloon ni ñu la sëñ bi defoon ci moom moo nga ak moom bi ma demee di ko laaj mu ne màggal bu daan jub dañuy ñëw ci kër sëñ bi waajal màggal comme nii ñu koy màggale waaye booba sàkket lañ daan def kër gi wér sàkketaan néeg yee salaat ko te booba lañu daan sàkketi kër gi ñu ngi ko doon jële diggante fii ak fii sëñ Souhaïbou bu dëkk tey kon laa sàkkani booba néegi néegi sàkkete fi nekkoon ñuy dem ba yàgg sëñ Abdoulaat xam ne jamono ju nekk day laaj wut mbub mu xeetoog moom nga solal ko jamono jam laaj walbas li kulli samanin ma yula la imaho moo ñu dem ba yàgg sëñ Abdoulaat sàkku ci sëriñ bi ne ko kër gi nañ ko yeesalaat néeg yi ñu tabaxaat ko sëriñ bi tamit ànd caag moom waaye sàkku ci moom rek néeg yi fañ nekkoon nañ ko yeesalaat te bàyyi néeg yi day bu doon lañ fa ba wala du fa nekkati ñu dema tey boo ni néeg yooyee nam nekkoon yëpp sëñ Seex sola naan na ko mbubb moo xam ni yelloo naag mbubb mi mi mu sol tey ndax jumaa ji mbubb moom soloon ak mi solaat ak mi solaat tey jii bokkuñu kon day mel ni nag euh, euh, euh, doxu yoon wu nekk mi ngi aju ci jàmbaaru ñeñ bàyyi yàlla na ko fi yàlla bàyyi bi ñuy dugg rek léegi la léegi la laay waxtaan ak sëñ Ibrahima Jaxate mii mu ni ma day mel ni barab yi daa gën a jigee léegi ñu xam na xañ na booba lañ nekkoon lañ nekkoon ndaw nekk xale moo taxoon boobee Lalu rek lañ nekkat tay ji mom lañ démat ba di wa magal gi likoy wajalat lepp tamit bok ñun ñi ngeen gis ñu nekk fi mo yi nga xamni ci ñun lañ nekk tañ faré wo ndiarim fi tollu mbir ñi yalla may ñu mëna xam mbir fuñ te nekkuñu fa bariwul daanaka fo nekk da ngay yaakar rek waaye ku ñew bëk si ngay doora xam li xew xam nga ñu nak ñom ñoyam bok ñu bayyi seen kër tëj seen place amna ko ma ci waxtaanal legi ma place jaay sànd ga daf koo bàyyi ñëw donte ñetti fan la daf koy daf ko fi am bu noppee delluwaat bu ñu demee nag ba mën a yeesalaat kër gi ci jumtukaay yu bees yi nga xam ne dañ naan réew mépp boo koy wër fii la amee te li koy def bokkaat ci ñun dong yi doon xel comme baas loolu tamit ëpp la ci ñun dong yi fii liggéey tamit jóge njaareem ak ak ak ñi ko ànd ci ñii di jël wax ji tasaare ñëpp tamaat bokkaat ci kër gi day mel ne ñoo ñoo doon sàkket kër gi ngir waajale ko màggal ñoo ñëw tey di defaraat kër gi nii ngir waajale ko màggal loolu nag wax deug yalla njangat njangat njangat njangat mu reuy mi ngi ci xam nga nit baxu wut xam lum lu lu lu bëgg lum xamut motax tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ni kon sakku ba xam li nga wara def mënta ñak julit bu goor ak julit bu jigen bu ne bo xamul mbir man nga ko dekkale fu mu dekkut wala nga wañi wala nga yok julit ci lu ci bokut waye boo xame rek moy moy mooy nga yam te euh, Hasanul Basiri dafa waxon ni tit naa ne jamono danañ dem ba diine mi ngi sanko ci digënté yar yi moy ki ngort ba wàññi ci diine lu ci bokut wala ki ëppal ba yok ci la ci bok ngir bañ li dalon niti Isa ci ëppal ci mom ba ne la wala la niti niti musa ba ëppal ci mom ba yeesal ci mom ba wàññi ci reum seigne salim nak kum yar di nga di nga nite di nga di nga jaar yon motax seigne Cheikh Mbacke mi seigne Cheikh Amadou Mbacke xamni ni kër gii kenn waru ko bàyyi may ndaysanu li tax moy mët mi da wax ba tay kër gi moy kër seigne Touba jàpp naa ni mën nit mënta teg tànkam ci kër gi foo xam ne sañ Tuubaa teg ko fi woon fii la mat la bul foofu sëñ nekk xeetu ñaan sëriñ bi def na ko kon kër gu mel nii war naa xam ne ku ko ci sa bët di nga ko xam ku nopp di nga ko bëgg ku jaxasoo kër gi nag doo ko sañ a bàyyete sama bàyyi dafa ñëw ma koy wax lekk gu neex mu ne ma ñun de bu njëkk bu ñu daan màggal ci fii dañuy baas ci kër gi kenn ku nekk wut sa baas sàkket loo am nga bi indaale sa cere loolu nag lañ dem ba baas yu rafet yi ngeen di gis ci biir gi waañ wi ñu am ñuko yoré ndox mi am ñuko yoré fu way tok li nga bëgg lepp fekk leen fa lool nak ki sétan ndax dara man xol xol xol di daan rafet nak jek nak photo rek la ci wara def señ bi de mom ko xir ci lu baax la ndax xamna limay jariñ ba sañoon koy def waaye ñun ñi nak sun lisanul hal yaqulu lisanul hal li kun khadima man hama xanil ak dari billaahi saara yi ki torox ki la tabbi ci musiba ki taxa tax a jariñu bu la waxu dara sa lisanul hal mo la wax ni la kon xamal ne amna foko wara fété lool nak liñ ci wax moy liggéey bi nañ ci ñëw di ci japp xamni waxuma la ñi dut ay dong waaye sëñ seex sax ñun lay jappalé ndax ndax ñun ñi le seigne bi fatoon seigne cheikh man nga wax ni jaar seigne Abdoulaye yar na seigne sëñ bu yar nako jaar na fenen waaye ñun bañ juddo ba niñ fi juggé seigne bay yor sun lepp kon bu la faddo saxal calam sax yi mu toll ni day mom ñun lay dimbali kon war nañu set ni lu fi def nañ ko jema def ci sun alal te giñ na dal ni kër gi moy lo xam lu ci way man ko xam nga hadith bu guddi dani innamal a'malu binniyati moy nit lu ko ñor bu ko sabab lo mu soti way keur seigne Saliou gi li gëna gaawé gaawe benn bis dama dem seigne bi diko sant naa ko diiw xel ko bu moo ñuy ci nangam moo ñuy jàppale ci nangam mu ni lool lepp baax na waaye nag ñun nañuy jema def lepp ndax moy tax ñu yóbbaale pay gep ñu tol bo demone xel ko bàcc ki la alop auto am ci tuyaaba ki la defal rojo am roto radu amna ci tuyaaba ki la ki la jox ciep amna ci way gor lu won bu wut lepp def ko tuyaaba jep lañuy ñuy te ñun dañuy wut rek antumul fuqara illallah wallahu wal xaniyul hamid kon nak ñing leen di wo ci liñ bëgg lii lépp hamni. la wo xamni ngir dalal wajal waajal gan ñi ba ku ñew am foo xësida lañuy jang ak wara barab yiñ koy wara defé da wara war a loola dafa wara taru di xéñ lu neex ku fi nek waro tudd waro waxtaan waro def leneen ñepp jubla qibla ku yorutub jukki di jang alquran yaa jang di setan ndax nit li ngay deglu ak diko xol ak lool mo gëna gawaat royaat ci xol ci xolam señ bi nak neena magal du fa du wu seigne nangout ni mo def dara kon nak ñun ñi nga xam dañ ci barkelu buñ buñ ci nango don dar lul ay ta dak yo xamne dañuy ta kaddu yi dal ñing ci wo ñep wax deug yalla eh, am nañ ndortu rafet ndax dem ba nekk bitim rew ñi nekk ci rew mi dongay ñep ñi ngi jéemal suñu bop ba li di tasaare wax ji sax ay dong képp koy def lool nak ak cant la ñu ci wo ñep di santat yalla baax assalamu alaykum wa rahmatullah